sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi dawina walil wali laqil lisaani waxlulan min xulum qad wa sharhu dakiran wa shakiran abad واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا أنت الذي علمت لقمان الحكم فليهب بالمصطفى غير الشم asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk daara ji waa ëtt bi ñëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaara di beral nu yokk siyaar waa daara Hikmatul Yawmi xaaj yëpp ak banqaas yi ci aju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 tàmbali na ba ñoo ngi ci sori ñi ci bëgg ay leeral incha allah ci daara ji ngir gone yi man fee jàng si ñu woote ci numéro boobu tey ñu fas leen yéene andil xikma bu amati solo tukkee ci sunu yaakaar Serigne Touba Xaadimu Rasul mu bokk ca waaram yooyu yi nga xam ne nii xolu jullit bu mas a dugg dana ci fàttali ko yàlla dellu ci ca moom euh, topp ci sunu borom tabaaraka wa taala fag fàggu ci tiyaabo wattandiku ci ay bakkaar wattandiku ci itam ay àq yi dox sunu digganteeg sunu mboroom mbindeef te lool mooy gàllankoor yi yi gën a mën a gàllankoore yàlla na musal Sëriñ Tuubaa dafa waxoon nit day ñetti yi rek lañ koy waxal fii la nekkoon lii la fi def fii lañ ko def loo bari bari daraja ak loo ñàkk ñàkk daraja loo tedd tedd ak loo torox torox loo barile barile ak loo ñàkk ñàkk loo baax baax baax ak loo bon bon ñett yi mënul ci mucc muy fii la nekkoon lii la fi def fii lañ ko def te kenn ku nekk ci ñun bokk yi benn ko dese muy fii lañ ko def ndax ku nekk ci ñun am na foo ne am loo fay def kon nag la Sëriñ Tuubaa waxoon ci Masaalikul naan ne ah yéen ñiy dund dey yéenay sàggane seenug dund waaye ñi ci bàmmeel yi ñu suul leen ku leen ne woon pëkk-pëkk bañ jóg nga ne leen lu ngeen gën a bëgg duñ la wax tàbbi àjjana duñ la wax yërmande yàlla duñ la wax yàlla jégal ñu waaye lañ lay wax mooy delluwaat àdduna di dund donte as caa lañ fay dund lum néew néew sax bu fa baatub laa ilaha illallah muhammadu rasulullah xaje ñu wax ko fa ndax bu ñuy dellu dellusiwaatee fii ñu tëdd mu jural mu jural ñu aw yiw kon nag ndegam ñi ci bàmmeelee lañ bëgg mooy dellu si àdduna te mënatula ne ñun ñi dundandi suñ dund gii nañ ko feesal ci euh, sàkku tiyaabo yi ëllëg ak wattandiku bàkkaar ak àq moo tax mu ne waa argabul ashyaai lil amwaati raddun ila dunya maa al xayaati walaw suwayaatan faqat li yaxmalu saalihatan tanfaahum in qafalu ci masaalikul jinaan Seydina Ali ibn Abi Talib dafa daan wax ne nit daal xiimaam maanaam darajaam mooy liñ koy nettalil ëllëg rek lu baax liñ fa doon def loola rek mooy lam am wa qiimatul mar'i maa qad kaana yuxsinuhu sëriñ Malick Basin si bokkoon ci taalibey sëriñ Tuubaa di nit nit ku bari woon ay xikma daf daan wax ne adduna de waay naa koy neen la ñu ne ko luy loolu mu ne àdduna daal boo fi defee as ndiir rek tàmbali naan diw de xamoon naa ko nangam de amoon naa ko nangam de mënoon naa ko nangam de defoon naa ko nee na àdduna naa ko yi neen la naa ko naa ko naa ko naa ko loolu nag lañ ci déggee mooy àdduna kat day romb rombin wu gaaw saxukaay ba mooy ëllëg alaxira addunya mamarrun wal axiratu xiyal maqar loolu la Sëriñ tubaay sunu yaakaar wax te mbokk yi damay wax ne àdduna xewu tas la ba nit ñi jël seeni bagaas di fat seeni sées àdduna xewu tas la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ku ne xam na ne ba mu fi jógee ak léegi junni at ak ñeenti téeméer ak nangam junni at ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak nangam kon nga xam ne yàgg na te moo na de moom bi mu ñëwee la mu wax aw nitam dafa leen wax ne leen ah man de ci mujj gi lañ ma yónni àdduna bu doon benn bisa dañoo bàyyi ba jant bi xonq bay waaj a sox ba toll ci sox ñu doog maa yónni maanaam li des ci jant bi loolu moo des suñu digganteeg taxawaayu bis penc moo tax mu ne benn bis mu ànd ak saxaaba yi ñu génn jant bi xonq jant di bëgg a so mu ne leen mabaasi wa qiyaamu saati hagada mbokk yi kon àdduna lu jeex la kon nañ wattandiku ah, wattandiku seytaane wattandiku bànneex wattandiku bakkan wattandiku àdduna mu ñuy fàtteloo yàlla wala muy tilimal sunuy jëf te loolu am solo ñoo ngi sant bu baax nag mbokki jullit ak mbokki taalib yi bu subaa ñu andiwaat mottali li ñu tàmbali tey incha allah ñoo ngi sant ci jàppale gi ñuy jàppale waa daara Hikmatul Yawmi te lépp jëm ci jàng ak jàngale ak yare ak dimbalante ci sunu biir ba daara ji ñu nekk nga xam ne mooy internat bi ci loolu la taxawee ñoo ngi sant mbokk yëpp rawatina ñu bokk ci jamhiya bi maanaam ci association bi ak bonne volonté yi nga xam ne ni ñoom fu dégg dara def fa seen dara ngir ñu am dara